Amin fi ñëw ñoo jógee république islamique Mauritanie ci président son excellence Mouhamad Ould Cheikh Al Ghazouani bokk di kenn ci sëriñ bi di kenn fii ci Touba yow tam di kenn ci yow moo yebal délégation bi ñëw muy président bu Mauritanie ki nekk ci sa wet si Mouhamadul Xattaari nekk consul ci ambassade ba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 bi riasati Sidi Mouhamed Xataari min assifaara wa cheikh Sidi Mouhamed Aminu wa maali al ax min idaarati tashrifat ustaz Fuknaas wa cheikh Mouhamed Fall wa yaqum lakum yuxammilukum asma taxaayaahu al atira ila faxaamati rais Sayid Mouhamed wul cheikh al Xaswaani risaala tayiba min axiihi wa waalidihi cheikh Mouhamed al Muntaqa wa yaqul ala kulli xaal laa taa'atil aqdaam faqad taawadna minhu haza hazihi almakruma wa taawadna minhu haza alsaxaa wala xarwa fa wafduhu walillahi alhamdu huwa kaana alwaxiid alladi kaana yasilu ilayna fi ayaami alsaxba ayaami alazmati korona wa dalika mima nusajjiluhu walan nansaahu lahu walan nansaahu li jumhuriyati alislaamiya almuritaaniya ala kulli xaal yaqulu lakum anna muritaaniya wa tuuba ka shay'i alwaaxid ka aljismi alwaaxid wa faqaamatu raïs aljumhuria yumathilu zalika wa yaqumu bi zalika fi adna mustawa fa lahu min madinati tuuba wa min alxalifa al aam cheikh mahmad al muntaqa wa min annaatiq bi ismihi asma taxaya wa jami al irfan wa yashkurukum mujaddadan wa yaqulu lakum kullu aamin wa antum bi xeyr نعطي الأخ سيد خطاري إن شاء الله تعالى كلمة قصيرة والشيخ سيخرج معه إن شاء الله تعالى السيارة التي تعبر عن مدى اهتمام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ رازواني ب أهل طوبى وبالمشيخة المريدية بصفة عامة وكذلك هي تأكيد لمستوى العلاقات والمستوى التآخي بين الشعبين الموريتاني والسنغالي ولا أريد أن أطيل عليكم وأشكركم